ci mën bëre papa ministre ngi fi téyeer ngi fi. Ah. nga na da ngay dugg ci làmb. bërse boobu nga war a téye. ci ndox lañ ko xam. maa mën maa ëpp doole. grand mérite gi ma def déggoo ma de. boo sa xaalis bu waddee sax ñeme woo koo for. boo tëddee nelaw yow xam nga doo daan. boo bëree. déggoo ma ma daan la boo xeexee ma duma la. waaw daan la. góomu tànk laa lay def ni ko téppee dagg ko. victoire rek mais Alboury ma waxal la leen. bëree bëree kase. ma la dàq bëree ñaar yaa ma dàq ñaar téeméeri yoon yaa ma dàq xeex mais maa lay daan. doo daan kenn garaaw laa lay wax. waxal lu bi. arène nationale bi ah, loo fi liggéeyul. bu mhm. la fi fekk si biir géew. yàlla bu liggéey di rey man damaa liggéey pare. ma war a pare non. jara mais liggéey. kon mbokki internet ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax comme ni ma leen ko waxee woon nag Dakar a ngi nii moo gagné yi nga xam ne nii moom mooy chef de l'état bi Père Kayre ngi ne la c'est l'entraîneur c'est c'est le directeur technique Père Kay yow lu waral coow li yàgg Père Kat yéen ñaar la <laughs> père maa ngi lay ziar. Babacar maa ngi lay fay. père en tant que directeur technique muy sa premier ñëw nga gagné ko tey félicitation laa lay wax mais plan yan nga tegoon yaak Amadou Kati Diop ba génn ci ndax final bi taroon na trop. plan bi moom li ñu teg mooy bi si njëkk mooy dama njëkk gërëm xale yi dama leen njëkk gërëm di leen sant parce que wax naa ko tout à l'heure sport xale du ko def te amul discipline boo amee discipline am yar am teggin rek lu ñu la teg nga tegoo ko rek mën nga cee sori lool lool lool premier objectif moo doon xëy na ñu qualifier final. parce que aussi équipe yi ñu ngi doon xaar boo gisee ñi ni mu déroulé rek affaire yi yombul woon mais ñu am ay xale yu am jom nangoo dégg am kilifa nekk ak ñoom entre euh, nekk ak moom regroupement loo leen wax def leen dañ koy def amuñ duñu sax hésité donc li ñu bëggoon moo doon lii rek am victoire finale bi te yàlla may ñu ko mu doon nag man sama premier drapeau sur l'état nee nañ vingt troisième année la pendant vingt deux ans yëpp mosuma ci participer dama nekkoon à l'écart CNG aussi maa leen di gërëm si bi ñu ko coptee proposé ma ko ma nangu ko donc lii defi la woon pour man kut ko kut dañ ko waroon jël moo tax on a mis tous les moyens pour jël ko di sant xale yi vraiment di di gën a sant yàlla xam ne daal métti woon na mais bi yàlla daf ñoon ndam ni alhamdulilah rabbil alamin mhm. Ibou Ndiaye dem def na ci seere yu daw yaram waaw mais xam nga euh, lu jóge ci xol ci xol lay dem euh, man du ma tricher xëy na ñoom gis nañ loolu ci man seetlu nañ euh, seetlu nañ euh, maanaam melokaan boobu ma mel man du ma tricher damaa bëgg lu baax te lu wax baax laay wax moom laay conseillé sama doom ak doomu jàmbur kon moom bu jógee si mbaaxam la wax ay kàddu yu fort kàddu yi dégg naa ko de ku nekk envoyé na ma lien bi di rafet lu mu wax mais àdduna noonu la àdduna noonu la àdduna lii yëpp day jeex man bi ma tolloo woon naa ni ana mu jeexul mais dafa war a di rafet rek. man daaw ma xeex si làmb daaw ma xulloo daaw ma xaste daaw ma saagante mais bu ma demee si géew rek dina dinaa la la ma mën dinaa ko def mais bu jeexee jeex na kon sport loola dafa war a boole tey xale yi tey maa ngi leen di doog a miin nii mais ñeme naa leen tey xam naa ne danañ ma ñeme parce que muy lan muy dañoo doon benn xàccandoo doorandoo ba li am tey donc maa leen di gërëm di leen sant si yar geeg man àdduna noo munti mel ki yàlla may ngay dawal jet privé ak yàlla may la nga yor saret man ñaar ñooñu yàlla yemale te buñ taxawoon da ngay xam ne man aw ma ci xaj ak seen parce que kenn du xeeb doomu aadama ñun ñëpp ay jaamu yàlla lañu yàlla mooy séddale mooy kii mais vraiment man su ma ci naree wax sax day bari mais daal maa ngi gërëm xale yi di sant Kati Diop di sant encadrement bi liggéey bi yenn yéen a si teg seen bët c' est toute une équipe boo nee équipe rek bàyyi boo limee sax da nga juum mais c' est une équipe non ñëw na ñëw na appuyer parce que aussi moo kooku expérience la tey dafa doppe xale yi dafa bi woo leen xamal ne ren dañu war a dóor dóoraat wax ak wax wax wax ju xam nga doppe leen ba xale yëg seen bopp wax wax yu yéeme te loolu mooy ay expérience parce que dama lay wax de Kati Diop fu mu nekk Moustapha Gueye ne fa man ma ne fa bu ñu bu ñu amulee dafa gënul si ñun. loolu leer laa wax. loolu waa ana mbër yi. non maa Obali ana Obali Obali ngi nii yow yaa tudd nan Sow Mali Selemele seeni barñi sama turandoo mbay Babacar Diop ah ma jëli sama turandoo kon Mbaye waaw félicitation mbay ok mu mel ni yow itam euh, daaw jël nga ko ren nga jëlaat ko mbay danga duble doublé ñaari yu tegloo ngay jël drapeau de ak Dakar tey lan ban yëg-yëg nga am non yëg-yëg bi mu amoon rek parce que dañ koy sant yàlla dañ koy sant yàlla ak jàppale gars yi jàppale paa yi waa Géro waa Palmarin waa Bitenti waa Jonwaar surtout waa Coocoor Jonwaar aha bi ngay ñëw dañ laa yëpp waaw yëpp nañ ma wax dëgg moom aha waaw li tax Ndakaaru wóolu la ba di lay at mu jot ñu sélectionné la non loolu yàlla ma ko rek te euh, ak sama jom tuuti waaw. Hmm. <laughs> waaw tuuti tuuti rek. waaw. am na solo Sow Mali. waaw ñu ngi siyaar ku baax. ñu ngi na ko moom yaa ubbi baal ba. yàgg na miin naa ko. daan nga waaj jël bu rëy de. barki sëñ Bamba loolu sama jiko la mooy sama deuxième tour. waaw ban dëkk nga dëkk. campement maak moom mi waaw xool naa koy gis. kan kan nga soxla. un ziga. ñoom ñaar un ziga anam. waaw waaw yàgg un ziga. lan ngeen di xaar. da ngeen a war a bëre waay. lan la ciy xaar un lan lay xaar ci maag moom. ñu da un ziga kay wuy Mali. na ñëw ñu laale. sama naataango nga. Oh. na ñëw. waaw waaw ku koy dindi. ka mën a bëre soow. maa ko soow ma nga ñaaw na deux ziga ñaaw. maa ko dàq mais ñoo ko gën a ñaaw nga nag. maa ko dàq ñoo ko gën a ñaaw nga. <laughs> yaa ah. mais contentement am na ci yéen. waa sant nañ yàlla bu baax kontaan bu baax a baax macha allah wax dëgg yàlla kontaan nañ trop sax vraiment. yow nga ne. man maa ngi écrit Ngekox mbooloo campement. waaw ñoo dëkk ak Toubacouta waaw di sant waa campement yëpp di leen béggee di kontaan ci ñoom bu baax a baax a baax gis nañ leen ni ñu comporté woo ak ñun gis nañ tamit ni ñu taxawoo vraiment di ñaanal campement yëpp di ñaanal itam gars yi tamit yal na leen ndam li jik yal nañu ndam li jik bu baax parce que tamit li yombul waaw yal nañu jik waaw di begee itam ñi nga xamante ni dañoo bàyyi seen yite yëpp topp ñu ñii te joxuñu leen ñaar dërëm waluñu leen dara ñu bàyyi seen yite yëpp ñëw topp ñu fu ñu dugg ñu dugg fa ak ñun du ñu nelaw fekk ñun nelawuñu du ñu lekk fekk ñun lekkuñu ñu topp suñu ginaaw mooy suñu gaay yi nii nga xam ne ñooy gàddu suñuy saaga fu ñu jëm ñoom la ñu àndal ñu ngi leen di sant di leen gërëm vraiment waaw. kii moom dama neex moom kii moom damaa neex ndax daa mën a bëri ba pare yaru. waaw si li kontaan rek. kon waaw kontaan naa bu moment xawoon ngeen tiit de parce que benn moment. non nun duñu tiit parce que nun tiit. mais yow booy nu mu la rek erreur la waaw te may doog a dal waaw damay jàngal lu bëri waaw. <laughs> nga ne du tere da ngeen di yóbbu coupe bi. waaw moo tax ma jog génne looloo tax ma jóg génne waaw xam ne dañuy gagné. mais nga ñëw sele topp la. waaw c'est normal parce que du warul yomba waru woon a waaw. parce que loo xamante ne dafa waroon a métti. dafa waroon a métti waaw. li ko dalal la daal de finaal bi. waa noonu la xam nga sport la sox sox fam la yegg daa sori de. sport la te juum day am quoi parce que boo xoolee man maa changé pied rek mu daw for ko quoi waaw mais nag juum bu amul moom xam nga ne daanu du am te équipe la ñu wax te suñu équipe bi nu ma la wax rek ñun dañoo gëm suñu bopp doon benn ñooy defandoo lépp ñooy sangoondoo ñooy suuroondoo ñooy def lépp xam nga boole xool yi wallaahi ñun ñooy defandoo dañuy lu lu ku waaye am day ñëw jox ko moromam. pour rek ñu gagné mais nag final lañ doon dem te final war ta yomb xam nga ni final day métti voilà te gis nga moom moo tax bi dem dem nañ ba deux de yi tar na mais yàlla suturaal nañu ba ba ñu jël ko quoi di ko sant yàlla bu baax a baax. mais dégg naa ak yàgg Ibou Ndiaye da ngeen a euh, combine ci open bi de. non non non sele sele loolu daan na la. sa waay moo moo toj sama bagage loolu daanul sele faqat moo faqat mu def trois. faqat boobu daan na. waaw gisoo loolu eh affaire bi sport la yaa ngi gis bi sport lan moo war a mun a tax ñu ñëw fii nii di commune. waaw xam nga ah, tax. waaw arène nationale gañ nekkoon. Mm-hmm. nekk regroupement di waaj. di contact ba ngoon jot du ñu fay fukki dërëm. kon bu ñëwee fii nii nañ contact rek. dañ contact. goo kese ga. yàqul dara si équipe bi yàqul dara si équipe bi. ay sportif lañ. waaw. mais yow. bi yi defee 2 nga war a ñëw. nga xam ne boo daanee Dakar yóbbu coupe bi buñ la buñ la buñ la daanee Kaolack yóbbu coupe bi. dëgg fa lañ koy xamee waaw gaynde dëgg fa nga koy xamee barki Serigne Touba Mbacke comme te ne fit bi du raf bi ma demee ba mu wóor ma ne booy nii am na si ñaar ñoom te ne perte nañ man man maa ci des comprendre nga Sega Mega perte Seydi Bani perte comprendre nga ma ne nag waaw instant bi man maa war a relever défi bi quoi eh, foofu ngay xamee nag gaynde dëgg waaw ma ne gi des man dama koy gérer parce que nit nit kese ngay doon te jom bu nekkee ci yow am na moment yoo xamante ne nii nii ni waaw dafa war a yeewu moo tax nag man pour ma yenn leen te ni mu demee tey noo la demee woon tamit démb waaw démb bi ñu demee ba yegg si foofu noonu tamit dama ko gérer avec la manière comprendre nga tey ma ñëw gere waat ko parce que ma ñoom dama gën ci xoog parce que booy ay jàmbaar lañ te dañoo neex àndal barke Serigne Touba boo ñu fekkee kër ga da ngay ne ñii ñun ñëpp da ngay ne ñii ay morom dañuy foo kaf dàqante xam nga bokk lépp nii ngay tey si bëccëg bu ñu bu ñu ñu xëyee ba ndékki ba pare maak moom ñoo tëdd mu tëdd nii ma tëdd nii ñuy nelaw di waxtaan bu daggee banaana jox ma ñu waxtaan di bokkandoo sangu di bokkandoo suuru ñoo préparé ndoo lépp kon yàlla xol lay fay maanaam maanaam kenn nekkut ak moromam di jéem a yow xam nga ne bu Ndiaye ku ko xam-xam ne xool bi dara newu ci maanaam am na mbër yoo xamante ne mun nañ mun nga bokk ñoom regroupement mais dañuy moytu comprendre nga di di nëbb di def ay gestes yoo xamante ne yow sax da ngay dem ba da ngay génne wu yéen boo ngeen ñëwee si làmb sax après doo ngeen firi yee mais gars yow yaa ngeen di ñameloon seen bopp parce que fii Sénégal ga ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi te àdduna amul solo comprendre nga kon li sport kese dafa war a rafet. mais yow mu mel ni dem su ma la xoolee dafa mel ni yaa ngi doon bëri euh, pression parce que li tax ma wax ko mooy région de Fatick ku ne xam na ne mooy sa dëkk Diofior nga ñëwal dakaar te bii loolu amee dafa mel ni ay wax dafa am na ay polémique am na ci. bëri na trop wax ji bëri na trop trop trop mais. c'est Sénégal qui gagne ndam gi génnu fii kaw ak Kaolack ak Diourbel ak lépp ñun ñëpp ñoo far comprendre nga gars yi nañuy jël di nañ bàyyi di garaaw ak garaaw comprendre man doomu région de Fatick laa comme Balla Gaye nu mu nekkee doomu Casamance te di bëre fii comprendre nga ni Sega Mega nekkee doomu Ngeexox comprendre doomu région de Thiès ñëw di bëre Dakar ñu ñëpp ñoo far gars yi nañ bàyyi di sport la nañ bàyyi di ñàng ak wala di garaaw ak xamante nii garaawul bu subaa suma ma waa raison buñ ma soxla woon Fatick buñ ma soxla waatoon suba barki Seydina Mohamed ma ñëw teewal leen année prochaine buñ la wooyee nga dem mais pourquoi pas mais pourquoi pas mais ñun fii Thiès ak Fatick ak Kaolack ak yëpp parce que tey ku nga yëg rek woo nga si équipe am si yow confiance kooku nga mun a dem liggéey te dafa am loo xamante ne nii tey bu yegsee rek danga nga war a wone jom parce que tey sa waa raison tey xam nga waa raison de Fatick woowuñu ma comprendre nga parce que réservé wuñ ma woowuñu parce que xaw ma dañoo amu woon si man yaakaar xam nga léegi nag mu dem ba demee nii mu demee kon li ma war mooy ñëw xam nga def def différence wane fula ak fayda ak jom te lii laa ànd ak samay mbokk drapeau sera bu ñu ko jàppee si koor gi ba léegi amu ma jàmm entraînement gu métti di waaj dama dama dama ko dama ko teel a waaj moo tax ma teel a génn si korite gi di compétir si àgg bi pour mun a am xaalis bu ma gën a préparer lu ma si def si xaalis rek xaw ma nu mu toog gars yi mun nañ ma seede sarax yi dañuy génn damay dem ba jeexal sama grand yi di ma yónnee si xam nga ku si mel nii sama grand jogo baas aw ma fayam maam waa gi joom France tey suba damaa nekk ba yow mu yónnee si ma cinquante mille ne ma génnee sarax yi ma jox gars yi sama waa dëkk waa joof yor aw ma seen fay paa yi foofu noonu xam nga jigéen yi di ma jàppale parce que nag naa xamante ne Lamine euh, Babacar làmb yi du ay caaxaana koy jëg de chef de l'État trois jours yi nga fiy def mbër dëgg moo koy jëg maa ngay wax ko parce que bu fekkoon ne mbëri kese nga ko sekkal sa garaaw mais da ngay gis ñoo xamante ne nii chef de l'État bi seen yoon newu ci ne ko boo fexee ba diw daanu ma wéef nga gis cent mille wala ma jox ko cinquante mille boobu gu koy def si doomu jàmbur liggéeyante bi dafa métti si chef bi li ñuy daj si trois jours yi ko moo tax boo génnee chef de l'État bi da ngay mel ni il faut nga daw dawiwaat sa yaram di sangatu jiwaat di suuruwaat parce que liggéeyam bi dafa métti yow équipe bu nekk tey yow imagine toi Ibou Ndiaye fi mu ne équipe bu nekk tey équipe bu jóg maanaam xool li ko commencé soixante quinze kilos bi soixante cinq kilos bi ba ba ngay yegg ba cent vingt ñëppay joxe turu Ibou Ndiaye pour maanaam sëriñu kii jàppale ki war a bëreeg Ibou Ndiaye ba ba si ñooñu dirigeant yi door a ñëw après mbokk yi door a ñëw fu ne dinañ nga fa buum fu ne dinañ nga fa suug dinañ nga fa def lu ne mais nag suñu borom moo moo fi ne moo mën mooy borom kàttan moo am sutura kon ñoo ngi ñaan suñu borom ni mu ñu defaree sutural tey yaa nañu yàgg ñu suturale noonu parce que am na ñoo te dañoo soccoon seen bëñ ba mu weex pour reetaan comprendre nga waaw mais nag ñooñu dañuy xaar parce que borom day jógi géey ku ko yéene fande dina reer ba may équipe bi te équipe baa ngi nii ñoom ñëpp dañuy reer. waaw ah. ñu préparé woon tamit ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. waaw ñoom Jacob Balde Jacob ak Baptiste. ñoom Baptiste ah. waaw ñoom Daado ñoom Daado ñu ngi booy. Ah. waaw waaw ak ah, booy Jules. xam nga ak coach xam nga xam nga ak ak ak suñu ak suñu grand pôl. nga gaa yooyu noonu yëpp bi gaay wagaay Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye 2 ñëw fa may ñu entraînement may ñu contact jàpp ñu may ñu ndam xool te te te te sa opération te xool ma nag Serigne Ndiaye boo ñu gisee làmb Iba Ma Serigne Ndiaye day daw jaar nii Ibou Ndiaye daw jaar nii kenn du xool sa morom suñ ñëwee ñu bëri fukk ak fay mais bu ñu paree si guddi ga ñuy déggante téléphone fis naka mu naaj yow gis nga boo ma tey bi ma defee nii ñu waxtaan saga mega day jël làmb ma ñëw taxaw ne ko di paas sama oto dama siy soog gaz waat daf ma koy eh, jox. Eh, Babacar kenn du si campagne yi ah. ñu leen di sant bu baax di leen gërëm sonn nañ trop loolu la ñuy daj comme ñoom ñooy bëree waaw wala dëgg yàlla ñu leen sant bu baax di leen gërëm waaw vraiment parce que dañuy sonn ci affaire ñoo yor bagage yëpp affaire lu muy diis métti yëpp dañ koy gérer waaw mais président du Ndiaye Diéko waaw daf du njaay waaw daf ñoo fekk regroupement fee indiw ñu foofu ay boisson ay canette indiw ñu ay pomme ak banaana yëkkati yëkkati xaalis jox ñu koo fekk si waat ñu ndar ñëw yëkkatiwaat xaalis bu bëri jox ñu jëndalaat ñu ay ay cam instant ba ni may wax ak yow boo bu ñuy dem ñu ñu ñu may leen fir wi fir wi yaa ngi foofu ak monsieur le maire Go Faye Go Faye borom parcelle borom réaction waaw monsieur le maire jàpp na si parce que woo na ma mef tamit woo na ma doom raqam bi di nuyu waa réaction mouvement réaction yëpp parce que dañ ma doon ñaanal sama grand ñoom Dame duur xam nga ñoom ñëpp maa ngi di sant bu baax di gërëm parce que dañoo sonn si man sama sama nijaay Doudou Thior depuis France comprendre nga ñoom ñëpp jàppale nañ ma xam nga waa Diofior aw ma seen fay. comprendre nga sama mbokk séeréer aw ma seen fay waa région de Fatick aw ma seen fay. te dama am combat nga 4 juin maa ngeer bu sab nga 4 bu sab ma ngeer maa ngeer bu sab dañoo am combat nga 4 juin incha allah rabi may ñaan. ci papa ministère ngi fi téere ngi fi. nga sob na da ngay dugg ci làmb mbërsa boobu nga war a teeyee teey teey ci ndox lañ ko xam maa mën maa ëpp doole grand mérite gi ma de déggoo ma de boo fa ñëwoon sa xaalis bu waddee sax ñeme woo koo nelaw yow xam nga doo daan boo bëree déggoo ma ma daan la boo xeexee ma duma la waaw daan la góomu tànk laa lay def ni ko téppee dagg ko victoire rek mais Alboury ma waxal la leen bëree kase maa la dàq bëre yaa ma dàq bëre ñaar téeméeri yoon yaa ma dàq xeex mais maa lay daan. doo daan kenn garaaw laa lay wax. waxal lu la neex. arène nationale bi. arène loo fi liggéeyul. Mhm. du la fi fekk si biir géew. yàlla bu liggéey bi rey man damaa liggéey pare. li ma a pare yàlla xam mais gars yi nekk fii xam nañu liggéey.